professeur Daouda Ndiaye man maa jiite département bu parasitologie bu université de Dakar ak également li ñuy wax centre de recherche et de formation su la génomique des agents infectieux donc lépp luy wàllu génomique ci ci ci ci ci jàngoro euh, yi law ci àdduna yuy jawàlle donc lii nag euh, xamuñ ma ko sax ma koy def mais boo xoolee sama oto la ma fekk. Euh, mosuma ko def ci àdduna mais am na fu àdduna di toll il faut ku ci nekk nga góorgóorlu ci li Sénégal moom ñun ñoo ko moom te bu ma nuyoo ku ci nekk gërëm ku ci nekk ci sa taxawaay ci affaire bi li corona bi ku ci nekk Sénégal am nañ ci jërëjëf parce que liggéey bi lépp ki yooyu liggéey ñëpp la di bu ñu xoolee président Macky Sall tey dañ koy remercier féliciter ko ci décision sage bi mu jël pour interdire parce que foofu la xeex bi toll kilifa diine yi ku ci nekk ci ñoom ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax nga continuer ñaan bi seen taxawaay rafet na Euh, kilifa aada yi ñëpp ñu ngi leen di gërëm doomu Sénégal yëpp ñu ngi leen di gërëm ku ci nekk ci ñun am na luñ la war a gërëmee parce que xeex bi tey bu eggisee ba fii ku ci nekk jàpp na ci mais nag tey la xeex bi di soog a commencé parce que aujourd'hui il faut que ñu xam leen li gars yi Sénégal toll nga xam ne caaxaan jafe jeex jeexoon na mais tey la jeex parce que fii la ñuy xool Sénégal dina jóg wala dootul jóg te Sénégal pour mu jóg ñun ñoo ko yëkkati buñ ko buñ ko jàppul du jóg te dina daanu te li koy daaneel nag mooy bu ñëpp di ñenn ñi di gas ñenn ñi di suul te ñu mënu ñenn ñaa ngi liggéey di xeex corona suba guddeeg bëccëg du nekk ñu koy def lekkatuñu naanatuñu dematuñu fenn ñi ngi ci lopito yi ñun ay docteur professeur nekk ci hôpitaux yi la ñen suñu neen naataango ñi ñi ngi ci ñi ngi ci recherche ci def leneen ak leneen ñi ngi sensibilisation bi boo demee ci commune communautaire yi ñi ngi bàjjenu gox yaag ñëpp imaam yaa ngi wax ñeneen yaa ngi wax ñu ngi koy xutba ak ci fu nekk église baa ngi wax bu fekkente nag ñëpp dañu war a liggéey di liggéey am ñu tuuti ñu nekk ci suuf di yàq loolu man kenn xamul lu muy nduróol te Sénégal ñoo ko moom gars yi bu yàqoo ñun ñoo yàqule bu ñu demee ba corona bi mënatuñ ko aar dégg naa ñenn ñi naan tëj frontières yi bu baax ñun dañuy tëj Sénégal dañuy dañuy isolé te bu ñu isolé dootuñu lekk naan dootuñu faju tey gis nga ne suñu doom yaa ngi ni dèjà tënk nañ leen ci kër yi parce que loolu mooy solution bi ñetti semaine duñu jàngeeti ñeneen ñi pratiquement kenn amatul réunion amatul fenn Sénégal pratiquement dootul doxati lu mu war a doxee est ce que yaakaar ngeen ne loolu caaxaan la bu tax gars yi ñu war a continuer yenn Euh, te bu ñu bàyyiwul lii ñi nga xam ne lépp ñu ciy liggéey ñu ngi koy sa naax saaxal ñenn ñu bëgg a naax saaxal euh, comprendre duma man en tout en honnêteté man comprendre duma parfois doo comprendre ni ñi. parce que mënuñoo ne da ngaa nekk ci dëkk dëkk boo xam ne dañu war a rafet xasaat xol yi wala jàppalaat suñu biir am ñoo xam ne tey tey du place su xasante du pla du heure u xas sànnante xeet du heure kii kii tooñ na ma kii tooñu ma kii neex na ma kii naqari na ma kii kii kii lii rafet ba amul solo. kii tàgg na ma li may def xaaruma ku ma ci pan comme man ñeneen xaaruñu ku ma ci tàgg xaaru ku ma ci gërëm xaaruma ku ci wax lu neexul naqari dama gëm na lu baax dinaa ko wax bu neexee ñeneen ñi alhamdulilah bu naqaree ñeneen ñi aw ma ci problème parce que pour foofu lañ toll tey Sénégal ñoo ko moom suñu doom yi ñun lañu yaakaar ñi nga xam ne yàlla may leen yenn xam-xam ci santé bi ak ci wàllu ci bi ñun lañu yaakaar donc te espoir bi ñu bàyyi ci ñun dafa fees te espoir bu ñëpp la gars yi nañu góorgóorlu ñu jàppalante suñu biir corona dafay lu dëggu lu am mi ngi rey àdduna mi ngi lanfal ay doomu aadama sénégalais yi ñu ngi ci li di tëdd ci hôpitaux yi ak ci kër yi ñenn ñaa ngi sonn nañ leen ñaan ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu jëg ñu fëgg yàlla fëgg seen bu ci kenn sonn bu ci kenn loof ñëpp dellu seen kër képp ku nekk am corona ci àdduna ak beneen feebar boo am yàlla na yàlla yëkkati ba nga dellu sa kër mais mënuñu nag di def sensibilisation mën am na keneen ki ne amul bu boobaa keneen ki wax sensibilisation ñu ne ko fu mu war a raxase loo xam ne du raxase loo xam lépp lu mu war ko def te bu boobaa li ñu gis nii du dara pour moment encore il faut ñu déglu waxante la la vérité euh, yàlla bu ñu egg foo nga xam ne Sénégal dañ naan kenn mëntu ko génne ci situation bi gis nañ ko gis nañ ko Europe mi ngi gis nañ fi nu mu dem te ñun amuñu doole. ñun amuñu doole européens yi ak am nañ doole bu ñu yëkkatee seen bopp ñun amuñu suñu dëkk amuñu doole donc bu fekkente ne ñu ngi koy caaxaan ne ah man de du ma seeraan ku yàq Sénégal xaw ma ne ku ko nangu mais man de parce que man Sénégal laa am su suñu waajur fi leen dëkk suñuy doom fi leen dëkk suñuy papa fi leen dëkk suñuy mbokk fi pour man képp ku seetaan ñuy yàq Sénégal defuloo ci yow bokk na ci ñi koy yàq bi tey képp ku yaakaar ne bokkuloo ci tey amul président amul ministre amul maire amul député amul instituteur amul professeur amul docteur amul kiy jaay bitiku mbagg amul kenn amul imam bi ñëpp ko bokk xeexu ñëpp la. képp ku yaakaar ne keneen kaa ko war a xeexal sa bopp boobu defe naa ne comprendre gu la donc képp ku toog sa fenn sa benn clavier li jàppal ne li ngay def di ko wax ci suuf te doolu leer na ne la yàlla militim xam na loolu yaakaar nga ne yow gëm nga ne nga koy wax yaa ngi yàqal sa bopp Euh, am na si ñun ñoo xam ne sax bu dëkk bi amoon problème ñu génn dem fuuti feneen am na suñu yaay suñu papa yi suñu maam yi suñu mbokk yi amuñu ko nañ xool si ñooñu même bu dee ay caaxaan la dañoo dañ yaakaar ne corona bi amul mais loo xam ne liñ koy teg day tax mu dem kanam mais buñ ko yàq yow boo defarul bul yàq te te te ñun moom Sénégal Sénégal bu yàq ñoo koy yàq euh, te tey man ak sama morom amul professeur lañ amul docteur lañu dañuy wàcc suñu bopp ba ci suuf waxtaan ak askan wi fii amatul professeur amatul docteur. amatul infirmier amatul amatul kële mooy amatul solo ku ci nekk ci ñun wàcceel ba mu ko foo gën a wàccee avec toute modalité et humilité waxtaan ak askan bi parce que bu fekkente ne boo waxee ñu dégg la boo parce que xam-xam kay wax te ñun ñoo xam li ñuy wax ci lii yàlla def nañ ci loolu la am xam-xam ngir yàlla bu fekkee ñun nangul nañu xam-xam doomu aadama yi àdduna aussi doomu aadama dañu war a nangul suñu xam-xam parce que lii euh, mooy loo xam ne buñ ko bàyyee rek bu lawee du baax. gars yi man bu fekkee nangu naa ne yëre bi ma sol tailleur bi koy def am na xam-xam nañu nangul na ñu ñun ñuy liggéey am nañ ci xam ñu nangul ñu ko ci ñu nangul ne am na nit ñi mun mënuñoo bàyyi suñu liggéey bàyyi suñu tukki bàyyi lépp ci àdduna toog di ci corona di ci liggéey dematuñu dematuñu liggéeyatuñu kenn dematul liggéeyatuñu ñenn ñu naan lii te bu ñu tollee lii nii bu ñu continuer continuer ci caaxaan gii ñenn ñi di def gëm naa ne fii ay ay semaine Sénégal dina egg si fu ñu mën contrôler parce que nag euh, li ñu mën mooy def wax liggéey faj mais bu fekkente ne ñooñu am na ñu yàq ci suuf lépp day nax saay te nag bu Sénégal yàqu ñëpp ñu yàqule ñu dégg naa ñu naan kii sax dañ koy def lii non ni ñëpp xam ne lii bu yàqoo ñun ñoo yàqule amuñu dara ñu Sénégal Sénégal la ñu am amuñu leneen amuñu fu ñu feneen fu ñu jëm nañu dimbalante suñu biir ñu jàppalante suñu biir te xam ne lii mooy dëgg nañu wax nañ ñi ne aar bi yomb na raxas loxo lay médicament boo xam dem nañ ba ne la médicament buy faj affaire bi amul buy koy rey amul doom amul lii ko am mooy seen prétendance symptomatique mais mooy wane ne jàngoro bi dafa jaaxal doomu aadama yi. ñenn ñi ne non comme ñu ngi mi ngi wër am na ñuy wër amul problème mais si am na problème ah, mais ñaanuñu yàlla nit faatu ci Sénégal mais bu fekkente ne yenn yi am na nit ki toog kër ba war a war a hôpital demul non non du corona amul problème mooy kooku bu faatoo yow gëm naa ne ah. ah war nga xoolaat sa bopp de donc gars yi nañu nañu nañu xoolaatañ suñu biir nañu nañu xoolaat suñu bopp suñu biir nañu xoolaat suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu àndandoo suñu biir nañu bëggante soppante te gëmante te jàppalante je pense que foofu la Sénégal toll lépp luy problème mu nit problème keneen kenn waratul gis lu ñaaw ak lu bon fu mu toll ni Sénégal tey lu baax rek la war a ma gis ba corona weesu parce que benn ennemi la ñu am ñun ñëpp benn noonu la am tey mooy corona bi donc te te bu ñu daanoo kenn ñëppay daanandoo te te du boobaa ah gars yi dina métti si ñun bala ñoo jugati gis nañu dëkk yi fi am guerre balaa ñu balaa ñu jugaat ay at la ñu def ay at yi at at corona guerre la il faut ñu comprendre ko loolu du guerre nag bu ñu door ay pisole mais guerre la boo xam ne microbe bii koy def day yàq àdduna day yàqu réew donc nañ ci góorgóorlu ñu jàppal bu fekkente nag ni ma ko waxee ñenn ñi gis nañu rafetul maa ngi jéggalu bu fekkee ñenn ñi gis nañu teggi ñun maa ngi jéggalu sama sabab du woon loolu dama bëgg rek waxtaan ci ñun suñu biir ñu xam ne c'est du te man mi koy wax ñun loolu la suñu xam-xam màcc ci lu bari donc comme euh, gis na dama la wax dama la cee xor yi maa ngi lay jégalu te xam ne jaam rek laa yàlla moo mën wax ju rafet moo lu baax. Euh, bu baaxee yàlla la bu dëngee jaam moo ko def